Mor xam nga APR partie la boo xam ne euh, boo ko gisee ci naqar euh, la juddu ndax Macky Sall euh, dañ ko dàq mën naa ni ci PDS walla moom moo démissionné waaye dañ ko ci poussé ndax li xewoon ci Macky sàll ba mu créer parti dafa mel ne waa APR jàngatuñ ko ndax Macky Sall bu mënee bàyyi PDS ak li ko PDS defal Ablaye wàdd defal ko ko ba mu àgg fenn fi ber aw yoonam ni muñ na am na gor yu nekk APR yoo xam ne mën nañu lu raw loolu ndax ñoom amuñu ci APR lu toll ne li Macky Sall amoon ci PDS te teewul bi mu demee ba ñu bënd ko xatal ko ni ko du dox ni mu war a doxee dafa génn ber aw yoonam mais jàngatuñ ko Euh, ma jàpp ne kooku tudd ci ab réunion commission discipline ñu koy wax Mahmoud Saleh du yar du teggin ma jàpp ne Mahmoud sale tey bu amoon kenn ku ñu war a yar rek ci APR moom la ñu war a yar ndax benn nit la boo xam ne amul ab militant amul base politique comme ni ma la ko waxee te xalaati yàq rek la am du du indi xalaatub defar kooku nag bu dee dafa dem ba fekk ñi nga xam ne ñoo tax APR am moom kenn xamu ko woon bi ñuy xeex bokkul woon sax ci parti bi beneen parti la yoroon d'ailleurs bokk na ci li tax mësta déggoo ak Alioune Badara Cissé ca njëlbeen ga ndax dañ ko jàppoon koo xam ne day ñëw pour jël suñuy idée jaay ko Ablaye Wade te loolu lañu def bi ñu àndee di daw di ci réew mi di tabax di tabax ba àgg ci sunu parti war a am doole boo fàttali fàttalikoo Macky Sall bi muy def tournée Diourbel damaa xëy si rek fekk ko Diourbel mu ne ma Mahmoud Saleh delloo na oto yi bàyyi na parti bi fekk 4 heures du matin la dem ab Ablaye wàdd woo ko mu ñëw mu jox ko xaalis pour mu bëgg a tas parti bi man maa tax tey lu mu am ci APR mu am ko maa ni ko boo génnee APR fu ma la fekk balu bopp laa lay dóor ba mu dellu si bu ñëwee ba léegi di yàq rek lay def mais yàlla mi ngi ko koy fay. du ma dem ci commentaire bi ndax yàq gi muy def yàlla daf ko koy fay par force ndax du nitug defarkat nitug ay la nitug musiba la nitug complot la nitug trotskiste la kooku kon damaa defe ne moom la ñu war a yar yi man APR man man mi mu tudd sama tur gisuma ku ci ñemee taxaw di ma bind naan ma ñëwal commission discipline nañ ko def man waa APR ñëw di ma jéem a yar man APR jàpp naa maa ci gën a yaru sama yar moo gën yar bi ñu leen yar ndax man yaru kër sëñ Tuubaa lañ ma yar yaru lislaam lañ ma yar yaru jub lañ ma yar man nag ma mën a toog ci euh, rajo ni duma mooy yàlla duma sàcc duma fen nañ ko wax ñoom ñu nekk APR nañ ko wax yow yaruwoo nan ngay toogee di fekk koo xam ne moo la mag moo la ëpp xam-xam moo la gën ay bokk fa mu jaar jaaroo fi nga ne dama koy woo pour yar ko nañ ko def man de maa ngi leen di diggal li ma wax nañu teg loolu ci suuf ndax bala ñoo yar kenn nañu yaru ñoom ñooñ ci APR naan nañ yare nañu yaru ndax yaru mooy nga jut mooy nga xam foo bokk mooy nga xam lan la la yàlla digal loolu la ñuy yare nit mais wax sa xalaat ci politique te quatre vingt pour cent ci la ñuy def ay du du yëfi dara waxi complot la ak waxi tappale nga ni kenn du ci wax xalaatam loolu mënul ne loolu laa bëgg mu leer Mahmoud Saleh na yem fi mu war a yem moom ñu mel ne ñoom te mu dem moom ñu yari ko ndax moom Sénégal du fi doon dara dañ koy jox compal rek du fi doon dara ndax dëkku fi du Sénégalais kenn xamul fu mu bokk koo xam ne nag dëkkoo senegal amoo fi bokk amoo fi dara mënoo fi dara ba bëgg a bari fekk kilifa yi dëkk ci réew nga bëgg leen a yar loolu rek laa ci am lu ma ci wax